tout le monde. Là, on est ici au Palais des Sports, ici avec Basket Sénégal. Je suis là avec euh, Fall. Fall, Sénégal. yaay suñu lumière so doole yox la voilà Fall yox la jëli kon nak muy match bo xamné entre Sénégal lay don ak nigeria lan nga mëna wax. Paco kontaan ci interview bi nga may defal ni ñun ku bëgg gagner da ngay ku bëgg a jël coupe te ñun amuñu kenn kuñ fi ragal man kañ li may ñaan damay ñaan yàlla rek suñu nga xam ne ñoom la ñu bàyyi réew mu ñu suñuy waajur di seen ay kilifa ñu gën ñoo ñaanal ñun ñuy ñaanal mais nañu ko gën a yokk ñaan yi rek yàlla may ñu ndam ci ci ci ci Nigéria ndam lu sedd guy ñu dem final lu jëlee final bi yóbbu ko Sénégal Sénégal yëpp seen xol sedd. su ma ne la noo tudd loo may wax. Sénégal. dem daa am loo loo wéy lu neex. doo ma fa yóbbuwaat. comme Cameroun chantons les Africains. Oh. chantons la belle Afrique. tous ces beaux palmiers. Oh. Oh. la forêt magnifique. le café le coton le riz et le pognon. chantons la belle Afrique. chantons ses enfants. Nous n'avons pas de blé, nous n'avons pas de vigne, mais nos palmiers sont oh. et notre soleil grand. Chantons la belle Afrique, chantons ses enfants. Santo ses enfants, Santo ses enfants, Santo ses enfants, Santo ses enfants, Santo ses enfants, Santo ses enfants, Santo ses enfants, Santo ses enfants.